dafa bokkoon si ñu waxoon ba ñu taxawalee coalition Yewwi mhm. c'est de l'arnaque politique man dama bokk si ñu ko waxoon mhm. parce que ah, Assane boo taxee bopp koñ bi ci rond-point bii mhm. kii bëgg a dem aéroport kii bëgg a dem ndakaar ngeen bëgg a bokk oto day jafe mais ñoom ñëpp dañu amoon benn benn benn bëgg-bëgg mooy Yewwi comme ni ñu ko waxee askan wi parce gis nañ ne askan wi mi ngi dund ay jafe-jafe d'accord c'est-à-dire que gis moi j'ai toujours dit que nos acteurs politiques dañ koy mbubboo saa yu leen tey saa yu leen arrangé ñu jël ko ñu mbubboo ko sol ko jafe-jafe yi bu su fee jeex dafa nekk mais de temps à autre dañuy toog fàtte ko xoolal par exemple on a parlé de de l'immigration irrégulière est-ce que tax na politique yi def ko préoccupation bu ñu porté est-ce que tax na ay tweet ay communiqué oui mais que tax na ñu def ko combat est que def nañ ci marche est-ce que def nañ ci marche. ñu ngi jaay soble 1200 fu mu toll nii. Eh est-ce que def nañ ci marche. non non non fi voilà mm-hmm. donc ça veut dire que homme politique des fois dañuy jël mbubboo jafe-jafe askan boobu lay tudd. pour def ko sac boo xam ne bu leen arrangé. Mm-hmm. mais seen intérêt lañ njëkk a cheval de bataille daal merci. Mm-hmm. donc de ce point de foofu laay waxee. dañ ko tuddoon mais c'était de l'escroquerie et de politique. maintenant ñu dem ba ci biir ñu def intercoalition wàllu yeewi mu gën a doona ci arnaque booba ah, gën a garaaw booba gën a garaaw arnaque la kon nag damaa xam boobu nag <laughs> wàllu yeewi effectivement yeewi ah, inter oui non mënoo jël moom mënoo jël mënoo jël Mamadou Mbodj nga ne c'est mon candidat à Kébémer xaw ma sax fu mu dëkk mais je prends juste cet exemple <laughs> il est investi par la liste wàllu nga ne Assane mii nga xam ne il est investi par la liste Yewwi donc bul votel sa bopp voteleel Mamadou Mbodj eh c'était ça c'était ça l'intercoalition eh parce que ne ngeen jàpp ngeen ni c'est pour se donner des chances de gagner mm-hmm. oui ça a donné des parce que je suis d'accord que actuellement à waaw échec li ñu bëggoon mooy am équilibre du point de vue du résultat électoral immédiat. c'était bien xam nga tax c'était bien. parce que ça nous a permis d'avoir une assemblée. équilibrée boo xam ne pour la première fois. ñu dem ba nga naan il a fallu la voix de non-alignés pour que quelqu'un ait la majorité.